jërëjëf mbokk yi ci ànd beeg RFM rajo Futur Média benn waxtu jot na ci studio Eva Mbaye bisimila ci xibaar yi li gën a fës ci xibaaru digg bëccëg yi bokk na ca Guy Marius Sagna mi nga xamante ni ma ngay woyal euh, grève de la faim lank ne du lekk euh, kon euh, daan na ko tàmbali léegi mu mat benn ay bés moom mi nga xamante ni moom mooy Guy Marius Sagna mi ngi ci kasu bi gannaaw ba ñu ko teggee loxo ci ab doxum ñaxtu gu mu doon amal ngir ñaawlu kon li nga xamante ni moom mooy yokkute njëgub courant bi professeur yi kon jàng ba noppi ca FASTEF ñoom nag ñoo suba Euh, juróom-benn at gannaaw ba ñuy rekk daal di néggandiku euh, te ji ci suba nag la ñu woote ab rassemblement foofee ca place de la nation euh, ngir sàkk kon ñu daal di wàccoo ak li nga xamante ni moom la président de la république dige woon maanaam ñu jël leen kon ci fonction publique fukki at ak juróom-ñaar gannaaw kon ba Serigne Saliou Mbacké wàcce liggéey ba léegi Touba Sénégal yëpp a ngi jooy kon ki nga xamante ni moom mooy Serigne Saliou Mbacké taalibe yi ña ngay fàttaliku. kon nguur euh, gu sell gi danañu dem ca Touba euh, ci kanam lu jëm nag ci euh, xibaaru biti réew élection ñaareelu tour foofee ca Guinée Bissau force d'intervention bu CEDEAO ñoom nee nañu pare nañu danañ ko waxtaanee kon ci biir xibaar yi tàggat yaram lay doon ci ñaareelu pàcc gi ak Cheikh Tidiane Diagne tranche de vie waaye tamit yéen a kay xëy tey ñu ànd ceeg Mouhamed Ali Mouba Abdou Thiam mu féete ci machine bi ci micro bi Dieynaba Seydou Ba di leen dalal ak jàmm ci studio Eva Mbaye tey jii nag fukki at ak ñaar euh, gannaaw kon ba ñuy fàttaliku euh, ki nga xamante ni moom mooy Serigne Saliou Mbacké euh, tey jii nag la wàccoon ab liggéey Touba nag ba léegi ña ngay jooy juróomeelu xalif général kulli murit kon nag moom moo nekkoon juróomeelu xalif bu tokkoon ca jal wi taalibe yi ñu ngi fàttaliku mu nekkoon nag ku ñu ràññee woon ci wàllum jàmm waaye tamit ci wàllu diine yi nga xamante ni kenn mënu ko woon natt Marema Diop bis boobu day woon na daal yéemi woon na lool ñu bëri jàpp nañ ne foofu moom fa la jamono di yem. Serigne Saliou gi di fàttaliku bis bi mel ni démb ci moom ginnaaw bu mu yëgee nelaw bu Serigne Saliou Mbacke mu fekk ko ci diwaan bu sore lool ak Touba mu dox loolu lépp ci ay tànkam. biñ ma koy yëg booba maa ngi jël oto war a jàngi xasaayit fa ma ko yëgee ak jumaa ji war naa mat 15 kilomètres dama daw lépp fi la nekk ba fajar maanaam jàpp nañu moom dafay nekk rek. tey bi ñuy fàttaliku xew-xew boobee fii ci Touba xalaat yépp dem ci liggéey bu Serigne Saliou Mbacke. nguur si njàngalem Serigne Saliou mel ni lu bees ci moom. ndax moo ne woon jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom ni suñ ci defoon ci mag ñi. muy Serigne Saliou kooku moom beneen affaire la. fii nag ci nekk ngir ñu ñaan sis ci xëbru Serigne Saliou maar di ab ndaw am lu tolloog ñaar fukki at bawoo ba Saint-Louis. tey jii nga nekk ci buntu bi di ñaan lan nga yëg. kéemtaan la daal li la yëg fii moom mënu leen ko wax. ndax yal naa yàlla yokk leeram yokk ay ngërëmam. Euh, bu bu moom daal ñu ndaw ñi amul dasa am cër ci lislaam waaye moom bi bi bi mu ñëwee si la xam ni jaam yàlla war na ndaw na mag. fukki at ak ñaar ginnaaw ba sëriñ Saliou Mbacke dëddoo àdduna fi ci Touba Mbacke taalibe yépp di fàttaliku kookee nekkoon juróomeelu xalifa général di Mouride. sëriñ Saliou jógu fi tey la fi gën a ne. Marema Diop fii ci Touba RFM.

de la nation jàpp euh, RTS Salimata Awa ñi ngi tolloon ci ñeenti téeméer ak fukk juróom-ñaar ci ay jàngalekat yu génne ca Pastef taxawoon tem ngir ñu dugal leen ci fonction publique bi nguurub Sénégal jël ci ñoom ñetti téeméer mu des fanweer ñooñee nag di ñaawlu nguur gi kumba am nday ak kumba amul nday bi muy def yuba ko li mo yor sen kàddu 150 professeurs parce que bu njëkk ba ay 213 la xaar bu yak bi lor nañu bëri para yi xam dañuy dajale sen alal bay lepp luñu am lepp luñu am ci alal dugal sen dom formation bi lu etal wara def ñum ko jëkkal donc jàngale ki bëri ñi nek sama ginaaw fi yeb amuñu parents ay orphelins lañu dañuy ñak sen parents te amuñu liggéey loolu dafa doy waaru ñu fas yéene tekk yeneen i pexe wante bëgguñu koo wax collectif bi nag ni ak lu mu ci mënti doon xeex bi moom du ko baax tànk amut lu mu bëgg ñun lu ñu war a def duñu ko dévoiler mais yaakaar ma ne ni ñii nañu toog courage les bras ñu ñu góorgóorlu si ñun moo tax ñu woo ñu génne tey pour wax leen carrément que xale yi son nañu xaar ñu bëri xaar bu yàgg bii ñett faat nañu libi Maroc parce que dañu jéemoon dañu seen yaakaar dafa tas ñu jéem def émigration dem doxul ñi gaañu am na yoo xam ne ni dañoo bëgg ñu ni joxe woon na ko ci conseil des ministres bu juróom-ñeenti fan ci weeru janvier ci atum 2014 am na kaddu bu président joxoon ci conseil des ministres du 9 janvier 2014 mu wax leen comme quoi ñu saafar problème école nord Fastef jàngalekat dañu am seen lijaas ba pare demuñu président bi jël engagement boobu pour gouvernement bi saafar problème 2015 rek lañu xaaju promotion boobu affecté ñen ñi ñeneen ñi ni sama ginnaaw di xaar xale yi ngay gis ni fii daf sama ginnaaw marche bi nag nit yi ñu ko bëri loolu jàngalekat yooyu jógee ca place de la nation ngir dem ca RTS ñoom nee nañu juróom benn at ñu toog di ko xaar lu ëpp tuuru dañoo bëgg ñu geestu leen Salimata Aw euh, benn waxtu jot na ba teg juróom benn simili pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi RFM rajo bi jaamu seen soxla Guy Marius Sagna ma ngay wéyal euh, de la faim bu mu rek daal di euh, tàmbali man na léegi benn ay bés moom mi nga xamante ni dañ ko daal di nem euh, dañ ko daal di seetlu kon muy dugg ci wàllum activisme ak yi ni mel mu ngi ci prison bi gannaaw kon ba ñu ko tegee loxo ci ab doxu ñaxtu gu mu doon def ngir ñaawlu yokkute njëgub courant bi avocat maître Moussa Sarr moo ko xamle ñu déglu ko ci micro Barthélémy Ngom. waaw mu ci grève de la faim bi ba léegi bi mu door depuis altine bi passé. léegi wér gu

juróom-ñett ñëpp la woon waaye nag depuis altine yëgaatuma euh, fu ñu joxe nit ab sañ-sañ pour mu waxtaan ci du ñàkk mu am mais man yëguma ko léegi nag dossier bi fan la toll waaw xam nañ daal diir bi nga xam ne ci la chambre d'accusation war a am bu cour d'appel pour euh, pour pour statuer ji euh, def naa appel altine bi ñu génn chambre d'accusation bu cour d'appel am na délai un mois à compter appel bi ma def lundi pour statuer donc chambre d'accusation mu ngi ci délai donc daal fii ak trois semaines en principe incha allah chambre d'accusation war na attewaat appel boobu ñu def ñu dem ba Ceytu nekk ab village bi nga xamante ni foofee la ñu daal di denc professeur Cheikh Anta Diop daal di defar euh, tali yi nga xamante ni moom mooy jóge euh, ci diwaan googile dem ba Bombay loolee nag askan wi euh, nekk na seen mbébét tax nag ñi ngi daal di woote wàllu dañoo jàpp sax ne amuñu benn wormal bu ñu wormaal kon kii di Cheikh Anta Diop ci jafe-jafe yi nga xamante ni diwaan googu mi ngi koy rek daal di am ci loolu dañuy déglu ki nga xamante ni moom mooy góor Euh, kan euh, ci village euh, boobee le deuk ñu déglu ko kon ci micro Babacar Diouf. état du Sénégal war nañu jël lolu en charge. ñu delloo gëdd ki nga xamné mo teud fi nga xamné c'est un savant international. kon lolu war nañu xol ci mom manam dige yi ñuy yi nga xamné ñu ngi koy def. bu dul dayoo dëkk bi ak kilifa diini fi nekk sax ñu xol ci jëm ji fi teud ndax digal mérité wul loolu ndax jafé jafé yi nit ñi surtout bu dee nawet nawet moom enclavement total la ñu am kenn du dugg. kon loolu moom vraiment doon loo xam ne euh, waa caytu ñu ngi koy rafetlu loolu moom bokk na ci li nga xam ne wax dëgg yàlla metti nañu lool lool lool ba fa kanam yàlla te ñu ngi koy jooytu ba fu jooytu yeme waaw loolu daal wax dëgg nañu lool. état bi moom li ñu bëggoon def mu def ko mooy yoon bi nga xam ne mi ngi koy diggee depuis 30 ans mu defar ko daar daar waaw wala engagement yi nga xam ne mi ngi koy jël à chaque fois bu anniversaire bi ñëwee engagement yi muy jël ni balaa anniversaire bee di ñëwaat.

ñu ñëwaat fii ci euh, Ndakaaru waxtaanee nag lu jëm ci décharge euh, bu euh, mbëbës foofee nga xamante ni amul lenn kon lu ko daal di aar dafay daal di indi ay feebar yu bare bari ndaxte kon saxaar bu fay rek daal di tukkee am na ay cas d'allergie yu mu fay indi ak asthme ak mel ci commune yi nga xamante ni ñoom ñoo ko jege loolu moo tax nag foofu ñu daal di yëngu ci mbir mi loolee nag alerte bu kon médecin district chef district sanitaire bu Kër Massa di docteur euh, Bouna Ndiaye ñu déglu ko ci micro Salif Sow farata weesuwu ko la xam xamle moom médecin chef bu district sanitaire bu Kër Massar bile nee na bloc opératoire bu nekk ci gox bi dañ ko war a ibbi gaaw gaaw ngir askan wi mën koo jëfandikoo ndax sonn nañu bloc opératoire bi na loo xamante ne lu urgent tey parce que Kër Massar dafa peuplé donc war nañu rapidement autorités yi surtout locales yi nga xamante ne ñoo nekk fii jàppale ñu ndax loolu mooy assurer sécurité ak euh, santé population yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Kër Massar te ñu leen di évacuer ba ci yenn hôpitaux yi. district sanitaire bu Kër Massar buñ koy xayma moom mi ngi am juróom-ñeent bërëbu fajukaay ci loo xamante ni daanaka ñett téeméeri junni doomu aadama ñoom ñoo fa war di fajoo looloo waral sax ba ñoom soxlañ ay docteur soxlañ tamit ay yeneen bërëbu fajukaay nee ñu déwén war nañoo ibbi sax ñetti post de santé docteur na Ndiaye. bëgg nañu ubbi poste santé bi nga xamante ne mooy Darou Mbisset poste bi nga xamante ne mooy aussi recasement ak poste de santé bi nga xam mooy Médina Ndiaye donc créer trois nouvelles euh, postes bi. gën a jege population leneen loo xamante ni ñu ngi ciy xaar ay jéego ñu def ko ñoom waa kër docteur mooy ñàkk bu ñuy ñàkk xale yi ndax téeméer boo jël nee am nañ ci juróom-ñeent fukk ba mu des benn matière de vaccination li nga xamante ne mooy protéger xale yi pratiquement indicateurs yëpp atteindre nañu objectif bi ne mooy li ñuy wax RR2 euh, bi ñuy def à 15 mois parce que boobu nit ñi amaguñu habitude pour vacciner wu bërëbu fajukaay yi ak ñi ciy yëngu dañ leen doon tappale médaille di leen bravo ndaxte nee ñu atum liggéey liggéey mucc ayib waa Kajoor ak waa Alaaji Paate ñoom ñoo ci gën fës Salif Sow Kër Massar ngir rajo Futur Media. Salif Sow uh, forum civil nak uh, di xayma mairie bu uh, Mbour bu ñu sukkandikoo ci organisation boobile ne lu jëm nak ci wàllum nañuy téye ñoom seen ay citoyen commune bi am na kon ci téeméer yoo jël juróom-ñaar fukk ak ñaar waaye loolu nag terewul municipalité bi dafa war a dafay effort yu mag jëme ko ca na muy rek daal di gérer kon suuf si waaye tamit wàllum passation de marché Ibou Niang lañ ciy déglu moom mooy coordonnateur départemental du forum civil ñu déglu ko ci micro Abdourahmane Diallo. bu njëkk bi li ñu naan audit à blanc amon nañu euh, juroom fukki poñ ak ben waye bi ñu démé ci audit réel bi gis nañu ni amna ay yu kawe kawe yu baax a baax yoo xam ne tax na ñi nekk ci juroom ñaar fuk poñ ak juroom kon loolu mën ni sant la waye itam yokkute la goo xam kadam. jëm na ci kanam ci loolu itam ñu leen di ñaax di leen wax ni naam am nañu score bo xam baxna waye li nga xamanteni ke na bari na maanaam chantier bi gën na yaatu waaye beneen bi tam mooy li nga xam ne mooy programme bi te Union européenne financé ñi ko ak ki nga xamante ne que mooy association des maires du Sénégal def nañ ci ay série de formation def nañ ci formation ci décentralisation def nañ ci formation ci gestion ci fiscalité locale def nañ ko ci marché public def nañ ko ci gouvernance foncière def nañ ci ay atelier ci maîtrise d'ouvrage def nañ atelier national sur la décentralisation yooyu yëpp itam li taxoon ñu koy def mooy tàggat ñi nga xam ne ñooy conseillers municipaux yi gis nañu ne biñ leen tàggatee léegi am na véritable véritablement ay jëm ca kanam yoo xamante ni que constaté nañ ko. association Kër Kumba euh, Dadi di euh, kon mengo gis ki sak euh, président Macky Sall jeme ko nak ci tegay daan yu baxa bax ñi nga xamante ñom ñoy sakku gone yi ak jigéen ñi ñu japp ne soxna yi nak dañoo di jafe-jafe rawatina nak buñ la kon ba nopi association bi di itamit ñaawte fi ñuy tek ci kaw gone yi ña ci association Bobu dañoo amalon appui ci tay ji ci prison yi ci hôpitaux yi fofé ca Mbour Kumba Kan mo jité association Kër Bobu. bobu ñu déglu ko ci micro Abdourahmane Diallo. viol moom loolu moom kenn mënu kaa nangu kenn mënu kaa nangu ndax ki nga xamante ne bëggul sëy nga ñëw sëy ak moom par force yàqal ka àddunaam dina am ay traumatisme ci boppam dina am ay sëkkil ci yaramam bu ëllëgee xamul duñ koy jugé kenn kenn xamul moom moo joxe boppam wala yaa ko forcé du ko mën expliquer fu nekk loolu moom dañ koy dañ koy xeex dañ koy bañ te ñu ngi ñaan gouvernement bi aussi mu def si daan yi ci war ba ñu ba ñu koy def ñu daan leen ko ba ñu ko nar a def aussi ñu xalaat ne buñ leen daanee kon dinañ bàyyi li nekk seen bopp xam nga xale muumin la waaw xale alalu yàlla la moom newul ni damaa bëgg a judd yow yaa ko jur donc boo ko juree bu danga ko war a toppatoo bu baax loolu àq la ak yelleef la donc képp kuy métital xale moom mënuñu see d'accord waaw xale moom danga ko war a yor yor bi nga xamante ni ëllëgam dina mën a rafet dina mën a neex dina mën a barkeel donc mënuñoo d'accord ak loolu aussi RFM bitim réew. RFM euh, biti réew gannaaw ba benn waxtu jotee ba teg fukki simili ak euh, juróom euh, mu ñeel nag wot bi am suba foofee ca Guinée Bissau ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite mission d' observation bu CEDEAO nee nañu nag dinañu def seen këmtalaay kattan ba mbir bi mën a jaar ci jàmm ak ci leerange dem ba Guinée Bissau fekk fa ndaw ba ñu fa non ñu déglu kon ki nga xamante ni moom moo jiite organisation sous régional su régional bi ci wàllum organisation. d'élection di Soumaïla euh, kon euh, Maïga euh, bu nekkee mën nañ ko rek daal di déglu ci micro Lamine Ba. sans la détermination ferme de la CEDEAO, Dieu seul sait ce qui adviendrait. mën nañu rafetlu bu baax baax taxaway wi nga xamni nak CEDEAO ko ci premier tour bi ndaxte bu amone ni mu mel xeyna buñ doon yegg ci résultat yi baax nga xamni nak nag nañ ko jamono ji élection deuxième tour bi nak 29 décembre le suñu taxaway wara doon gestu élection yi mën jaar yoon ci transparence équité et responsabilité Jean-Claude Cassibrou président commission bi boo gisee mu tànn ma ngir ma ñëw superviser li nga xam ne nag moo di élection yi liñ ci nam mooy mu jaar yoon ñu bañ ci nemmeeku ay jafe-jafe ñëpp xam nañ ne élection bi nga xam ne moo war a dox suba diggante Domingos Simões Pereira ak ki nga xam ne nag mu bëri na ay enjeu loolu kon ñëpp war nañu xam ne ñun suñu teew fii li ko tax a jóg mooy amal ay élection yu jaar yoon waaye ñu respecté standard yi nga xam ne moom la CEDEAO di amal ci wàllu élection ci jamono ji nag maa ngi rafetlu taxawaayu ñaari candidat yi di leen soññ nag ñu gën am taxawaay woowee ba nga xam ne élection yi mën a jàll ci jàmm ak salaam. Je voudrais saluer les deux candidats et les exhorter à continuer à créer les conditions favorables pour le succès du. ñu tàggatu léegi Cheikh Tidiane. waaw jëna ba. ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar namoon naa la. maa la raw bàyyi ngeen jàmm <laughs> bu baax. asa <laughs> amiin ñu daal di ko door rek wàllu football ak Ligue 1 bu Sénégal ñu ngi seen quatrième journée daal nañu ko door kon bokk ni ki tey jii lañ koy daal di amal 16h30 génération foot dana dara dalal ñi di waa AS Douane féetee si place bi waaye choc bi nak ñu koy xaar ni diggante ka jël P ak jël 2 di Tëngéej FC ak Dakar Sacré-Cœur mi féetee ci bop raw gaddu gi 16h30 ba tey diggante jàmbaar bu Saly ak Stade de Mbour ñaari tali danañ tase ki nga xam di wa di Pikine ëllëg nak lañu ñoo kon bokk yégal la ci dess ci walu jogante ñeel ba 4 quatrième journée Ligue 1 bu Sénégal 16h30 Mbour Petite Côte danañ tase ak ñi di waa SNEPS excellence bu Thiès euh, classique bi nak diggante Jaraaf lay dal di doon ak Casa Sport bu Ziguinchor 17h ëllëg Ñambur bu Louga dana tase ak ñi di wa Union Sportive bu Gorée Ligue 2 bi tamit ñu ngi seen quatrième euh, journée ni ki yi dana am ñaari jongante ñaar yëpp nag lay daal door bu njëkk diggante Union Sportive bu Wakam lay daal doon ak EJ Fatick ba ca des jamono dana tase ñi di waa Guédiawaye Football Club dimanche danañ kon bokk yegli la ci des ci wàllu jongante ba tey ñeel lii di Ligue 2 bi FC ak Port la ca des ci jongante dañ ko yeggali Africa Promo Foot dana tase ñi di waa Kër Madior Dakar 16h30 ba tey duk digam ak ñi di waa Sonacos bu Bawol lay dal di doon laata nak ñu koy jeexal match bu mujj 16h30 eh, niki ki ëllëg eh, gannaaw altiné altine diggante Demba FC bu Mbour ak ñi di Amitié FC ñu dal di waxtaane bi la yoon lii di phase nationale yu nawetaan yu ONGAM di organisme national en eh, nga xam moo gestion li di activité de masse ñom nak seen final ñinga dal di amal niki ki ci stade régional bu Kolda diggante ASC Soweto bu Kolda lay dal di doon ak Déggo bu Fatick Abdoulaye Diallo ñu door leen le 20 décembre bi weesu phase nationale yu ONGAM ñooy wéy ba léegi ci capitalu Fuladu ñeenti ASC ñoo doon jongante ci aljuma ji ngir seeni match yu demi-finale ca match bu njëkk bi ASC Deggo bu Kaolack moo doon laalek ASC Jamono bu Kolda far ASC Deggo jël ndam li ginnaaw bi ñu dugalee benn but te ASC Jamono amul dara ñaareelu match bi dafa opposé woon ASC Soweto bu Kolda ak Espoir bu Saint-Louis équipe Fuladu mo daldi modalité wandar duma par un score de 2 buts à 0. ci phase nationale yu ongam yi ñu amal ce dimanche 29 décembre fi ci stade régional bu Kolda ASC Soweto bu Kolda moy dajek dego bu Kaolack ca bëss ba dinañu amal it ab concert musique biñu ñu fas la phase nationale yu ongam fi ci Kolda RFM Kolda. Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo jërëjëf ñu daal di waxtaanee bi li yoon championnat ci biti ndax eh, yi ci ëpp jamono gi ñu ngay bër ba mu des championnat bu Angleterre nga xamante ni ñoom daanaka seen yëf yi takkarnaase ci bu décembre jotee ci kël dalee ci boxing day beeg li nga xam te moo di fin d'année bi ndax ñoom daanaka fête la ci ñoom mu méngoog nag seen vingtième journée ñu fas yéene ko kon bokk eh, door eh, niki tey ji ci wàllu jongante jàppale ni jamono gi diggante Brighton ak ñi di waa Bournemouth daal nañ ko door depuis 12h30 match bi jàppale kon bokk Euh, ñu ngi ci euh, mi-temps bi ñi di waa Brighton ñoom ñoo mëne benn bal ci dara la ci des ci jongante nañ ko daal di yeggali 15 heures Newcastle dana tase ak ñi di waa Everton Southampton diggam ak Crystal Palace lay daal di doon Aston Villa moom dana fekk Watford ci dëkkam 17h30 West Bromwich Albion dana tase ak Leicester féete si euh, ñaareel place bi ci classement bi sori loolu ñi nga xam ñi di waa Liverpool féete ci bopp raw gàddu gi geneen match nag 19h45 diggante Burnley lay daal di doon ak ñi di waa Manchester United ba tey ji nii ci samedi gi ëllëg nag di dimanche 14h mën nañ ko tuddee itam classique la diggante Arsenal ak Chelsea Liverpool mi fété ci bopp raw gàddu gi taxaw ci ba mu dëgër dëgër ñoom nag ëllëg euh, di dimanche 16h30 dañ tass ak ñi di wa Wolverhampton Wolverhampton mi nga xamanteni jamono gi ma ngay doxal fété ci juróomeelu place bi démb sax mom mo daldi kon bok euh, daan ñi nga xamanteni ñi di wa Manchester City daldi di dippan mbir mi euh, Manchester City googule sax fété jamono gi ci ñetteelu place bi ëllëg 18h digganteem ak Sheffield United lay dal doon kon bok jeene ba mhm. li mo fi gënon a ci xibaaru tamit nopi nga ay noppi bismillah ñu yegg si léegi ci tranche de vie tay ji nag ñuy koy eh, daal di eh, xamle mbokk yi ak Jack Mal eh, nekk na ku xarañ ci wàllu anglais nekkoon itamit fii étudiant ci science économique léegi nag technicien rizicole la donte sax parcours am am na solo bu baax a baax waaye Sénégal fii kenn xamu ko moo tax Mamadou Diagne daje ak moom ca Richard Toll nekk dëkk ba mu fekk baax. man sama tur Ndiak Mal laa tudd. Ndiak Mal mi ngi judd ci atum 1960 ci Richard tool ci gox bu ñu daan wax Richard tool Escale moom mi mi ngi màgg ci diggante fleuve Sénégal ak Braabu Tawi mu nekk benn environnement boo xam ne am na njeextal tey ci liggéeyam mu nekkoon élève boo xam ne mi ngi daan jànge ci lycée Charles de gol mu aayoon lool ci anglais waaye tey jii mi ngi nekk ab technicien bu yëngatu ci wàllu ceeb bi. ay japonais ñëwoon nañu fii ñuy tuddee JICA ñu soxla ay interprète ci anglais ah ma naa dem rek jéem bu ma jàllee mu nekkoon benn projet bu nekk au niveau de de Thiago comme que dañ doon liggéey ak baykat yi chaque fois dañ leen di wax ni def leen lii def leen lii ma leen expliquer nuñ koy defee ndeke ma en ce moment j'étais en train d'apprendre ak ñoom ndeke boobu maa ngi jàng maa ngi woon ci daara di bonifier projet bi première phase am jeex deuxième phase war a ñëw ñu un peu verser projet bi entre Sayed et Isra ma liggéey ak ñoom ci diggante boobu nag may liggéey ak ñoom la beneen service bu ñuy tuddee ca jamono jooju Adrao Adrao dañu ñëwoon visiter bu ñu ñëwee ma présenter leen projet bi ba pare ñoom ndeke soxla nañ ma buñ ma wooyee ñu waxtaan ñu proposer ma aussi effectivement ma dem liggéey ak Adrao. mu am carrière bu riche loolu bu ko may mu daal di taxaw si dëkk yu bëri yu nekk si biir sous région bi waaye nag mu mi dañu ko

engrais ak yooyu que beneen dem naa frontière am ak togo bu kinweej dem beneen côté bi ba frontière am ak nigéria yooyu yëpp ci wàllu mbay mi moom fa yóbbu mais richard toll dama judd richard toll gi rek moom laa doon wax xam naa trois bi <laughs> mi temps si bi tas <laughs> yi ñoo ma topp donte ne liggéeyam may nag mu daal di tukki si réew yu bëri yu nekk si biir sous région bi waaye tamit am ay opportunité ngir liggéey ak waa bitim réew waaye kii di njakmal dafa bàyyi lépp daal di ñibbisi si gox bi nga xam ni fi la juddoo lépp ngir daal di koy développé man dama tenir sama liberté lu bari bari am na lu ndaw li nga xam ne bëgguma lu koy xañ ñëw waxtaan ak samay mbokk waxtaan ak samay andi jàmm daanaka ataaye xale yi di gisee ak ñoom xale yi parce que depuis 82 ba léegi maa ngi encadre les petites catégories mm-hmm. donc xale yi koo ci romb père la lay wax donc c'est une famille que je risque d'appauvrir su ma doon dem foofu te est-ce que la valeur financière lu mu fay jëli jar na ko y a la valeur sociale y a cette vie sociale aussi au niveau de Richard Toll qu'il faut développer et que ñun ñëpp ñi ci bokk participer à ce développement. moom Milé mi nga xam ne ni tey benn rêve rek la daal di am te mooy ñu daal taxawal lii nga xam ni mooy parcours sportif bi si biir commune bu Richard Toll ndax dafa jàpp ne loolee dana bokk si liy développé tàggat yaram wi fii si biir Richard Toll Mamadou Diagne Richard Toll rajo Futur Média.